dama koy yóbbu ci ngenaaw yi ngenaaw yi dinaa ci rey dekkal ci fii si àddina yóbbu ko ci bàyyi ma yi muy ngenaaw yu maam ibrahima yi alayhi salaatu wasalaam yóbbu ko ci bàyyi ma yi muy mbaamam seydina Uzeyr alayhi salaatu wasalaam yóbbu ko ca géej ga ca jën ya muy jënu yont yàlla musaawa ak yont yàlla yuusa kon loolu xanaa waratul a rëy ci ab jullit sama borom ba di ko tasaare ci alquran nu mu ko neexe saa yoo paree mu ne loolu mënu la nekk lu tax jaral na ka ndax laayeen yee koy wax loolu ab jullit waru ko weddi sunu borom rek dekkal boo demee ay alxuraan du fa jeex ne moom moo koy def ndax lu tax moom moo bind dund moo bind dee moo bind dee bind dund xalaqal mawta wal xayaat kon ki bind dee bind dund nu mu ko neexe la koy soxis na ko yàlla warluwul ci boppam ne ku dee fii ci àddina mënuma la fee indi déedéet warlu ka ci boppam wane naka ñu gis ka ñépp a xam ne loolu lu mën a nekk tey jii boo demee ca suuratul baqara di nga fa gis lu mat juróomi taxawaay wala lu ko jege luy saxal loolu li si des nga dem ci yeneen saari alquran ndax li may li may bañ a dégg mooy lu manu la nekk te bokk na ci ay turam moom subhaanahu wa taala almuhyi wal mumiit boo demee ci asmaullahi alxusna di nga fa fekk lool waaw aw turam dafa faf doon ci moom aw tur moom subhaanahu wa taala kon seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam ba mu wootee ci biiri waxam ne mën a dem ba mën tey loola lañ cay dégg mooy dundoon naa deewaat dekki ñëwaat bokk na ci nag li yàlla joxe ay misaal ñu jàngat ka bu gaaw rek donte yaakaar naa ne ñi koy dégg bari na lool du xisse yoo xam ne day xisse yu jafee xam ndax jàngikati alxuraan yeeg déglukati waaraate yi dañ koy faral di dégg jëmm ji nga xam ne moo dundoon ci bani Israël te jamono yont yàlla Moussa alayhi salaatu wassalaam ba nga xamee ne am na ku ko faat mu faatu mu daldi koy diri yóbbu ko ca buntu këru noonam ngir ëllëg bu coow la jubee ñu jiiñ ka kook ba loola amee ci li mu fassiru neey wax tafsir moom dafa yar loola ba mu amee ñu daldi di kay jiiñante ba mbir ma feeñee ku ne naan yow la kii naan yow la son borom ba digal yonentaam sallallahu alayhi wa sallam naa Musaa alayhi salaatu wa salaam mu digal leen ñu rendi aw nag nag woowa bu ñu ko rendee ba mu sotti nañu jël xaaj bu bokk ci nag bi ñu dóor ko ci néew bi dëgg nga lool kenn du suñu boroom waaw mu ne bu boobaa dina jóg wax kan moo ko rey wa iz qataltum nafsan fa daaratum fiha wallahu muxrijum maa kuntum taktumuun fa qul nadribuuhu bi baadiha kazalika yuxyi llahu almawta wa yurikum ayaatihi laallakum taaqiluun nu ne fàttaliku leen nu ngeen waaru ba nga xamee ne am na doomu aadama bu rey moroomam coow jib ñu di ka jiiñante ma ne leen ca làmmañ yonentam jël leen benn xaaj ci nag wi ngeen dóor ko néew ñu jël xaaj bi dóor ko néew bi mu jóg ñun ka ku la rey mu ne diw moo rey wax jeex waaw loolu la xëm dekki walla dee dekki kay dee dekki waaw dee dekki waaye du xam ximmi dee dafa foor dee dafa foor loolu xew na fi alquran nettali ñu ka pour tëj gémmañ ak képp koo xam ne mu ngi limité kàntan ak suñu borom subhanahu wa taala inna allaha ala kulli shay'in qadir lu sa xel daj ak lu mu dajul boo amee tawxiid war ngaa xam ne yàlla mën na ko mu yomb ci moom lool ba ca des mbooloo nga kële kenn ak nit mbooloo mu àndoon ak ci yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam muy juróom ñaar fukki gaa ña nga xamee ne ñoom ñoo àndoon ak yont yàlla Musaa ba muy dem di déeyoo ak borom bi bu ko boroom bi waxee mu jottali leen waaw muy sabuna rajul yi alquran di nettali juróom-ñaar fukki kilifa yu mu àndaloon di ay gaay yoo xam ne ci gaay yi Musaa lañ ndax Musaa boromam nattu la woon yàlla nattoon ak ay taaluba yu werenteeg moom waaye nag suñu borom subhanahu wa ta'ala tànnaloo ko juróom ñaar fukk ba ñu musa di wax ak suñu borom suñu borom di ko wax mu di leen jottali mbir ma nag doyu leen ñu ne ko musa de ba ba tey yàng nañ yàlla nee na yàlla nee na nee na def leen leen te ñun ki ñuy wax ko dañu bëgg nga wan ñu yàlla mii ngay wax jax ran ñu jàkkaarloog moom wa is qultum ya muusa lan nu'mina lak xatta nara allaha jaxar muusa newuñ ko duñ la gëm de bu doon loolu ndax ay taalubem la dañ ko naan lan nu'mina bik bika loolu mooy nga gëm ka gëm ne yàllaa ko yónni bu dee lakka nag lan nu'mina laka ci lam ak kef moy duñ la dëggal te dégg ngeen sanga bu tedd bi sayyidina ali alayhi salatu wasalaam wan nasihatu li rasuli sallallahu alayhi wa an tu'mina bihi wa tusaddiqahu la yebir ñal yonen bi sallallahu alayhi wa moy nga gëm ke bi mu la ne yàlla ma yoni nga ne amana lum la xibaare nak nga dëggal ke yani tu'mina lahu tu'mina bihi wa tu'mina lahu tu'min bihi mooy nga gëm ko nekk yàlla la yónni tu'mina lahu mooy nga dëggal xibaar ya mu lay wax yàlla nee na nàngam bu fekkee ne sa ngëm wér na da ko war a dëggal ab yonente la ko wax waaye ñoom seen ngëm dafa manqué moom la yàlla di wax wa is qultum ya muusa lan nu'mina lak xatta nara allaha jahar ñàkki teggin la ko yàlla jàppe ndax ku toll ni yàlla nga naan naa ko gis jaxran loolu yàlla daf ko jàppe ñàkk ay teggin ak ñàkk ngëm yàlla xaaru leen Musaa sax laata mu leen di tontu son borom ba nee na fa axasatkum saaiqatu wa antum tanzurun nee na keroog xaacu walla dënnu walla mbugal wàcc na ci seen kaw ñuy xoole di dund di gis li wàcc ci ñoom ñu daldi di faatu ñoom ñépp dañu dee ba mu des yonent yàlla Musaa alayhi salaatu ba mu des yonent yàlla Musaa su ma boroom ba ne ñoom ñépp ñu dal faatu li ñu koy xamal mooy summa baasnaakum min baadi mawtikum summa baasnaakum min baadi mawtikum laallakum tashkurun nee ne bi xaacug dënnu googu ëgsee ci seen kaw walla bugal moomu si seen kaw dañu faatu yàlla ne ginnaaw booba nag dama leen dekkalaat indiwaat leen ci àddina ngir ga ñoom ñu gërëm sant kon loolu lañ lañ ciy dégge juróom ñaar fukki nit yoo xam ne juróom ñaar fukki nit yàlla sama borom ba faat leen ñu doon ay niiw seen ruu dem na dundatuñu yàlla indiwaat leen déggoo mu ne summa baas naakum min baadi mawtikum ginnaaw loola dama leen dekkalaat ginnaaw bi ngeen deewee waaw dekkalaat ginnaaw bi ngeen deewee loolu laaj na ñu tekki la mooy lan ah loolu loolu laajul ñi la tekkil mooy lan déedéet ndax arab yi dañuy wax min al mu'dilaat tawdixul waadixaat bokk na ci liy indi nag ay jafe-jafe mooy nga fekkalu leer nañ nga bëgg kaa leeralaat ah waaw gàllan ko waaw làmpe bu bu leeree ci wolt yi mu war a yem leer nañ nga ne dëgg bëgg mu gën a leer boo moytuwul nag mu burli ci say loxo leer ga nga amoon nga mu jëkk a ñàkk waaw min al mu'dilat tawdixul waadixaat lu xës leer bàyyil noonu kon summa ba'asnaakum min ba'di mawtikum buñ la laajee lan mooy wëccu dalil ci aaya bi maanaam ana ban parti nga mën tegtaloo ci aaya bi ndax doo indi aaya bi yëpp jàppe ne tegtal la dafa am parti ak wet ci biir boo xam ne moom ngay jukki wane ne lii kat mooy wane ne nit dina dund fii ci àddina dal di dee dekkiwaat te nag mu ngi indi xarfu atfin summa summa ba asnaakum nee ne summa moom at fu la boo xam ne fii du taraax yi day wane ne ab diir dox na fi diggante ba ñu deewee ak ba ñuy dekkiwaat waaw loolu leerul nga ne déedéet leerul yàlla ni kaaral xaaral mën di daal leneen kon ñaara ngoog bële kenn la kii mbooloo la juróom-ñaar fukki nit faatu yàlla dekkalaat leen indiwaat leen ci àddina waaye ab biir dox na diggante ba ñu faatoo ak bi ñuy dekk moo tax ya Moussa dal di tàllal loxo borom bi di ko ñaan yàlla di ko ñaan njëkk di ko wax ne bu ñu toppee yàlla ndax danga ñuy toppee li nga xam ne woyu deseli xel ñi seenam xel des ñu nekk suñu biir ya ñuy def ndax yàlla danga ñu koy toppee in hiya illa fitnatu ah ba yàlla dëkkal leen ñu delluwaat seeni kër toogaat ci seen ak njaboot yokku ngëm la àllakum taskuroon ñu gërëm yàlla defaruwaat ndax yont yàlla Moussa mi ñu àndal moom ci boppam ba mu ñaanee yàlla gis yàlla lan moo ca xew arini anzur ilay qala lan tarani walakin انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قالوا تب قال لولو subhaanaka inni tubtu ilayk laajoon na yàlla xool ka waaye du kom laajëb ñële yàlla ne ko dooma dooma gis waaye xoolal tundu doj wu dëgër wii jëlal sa bët nga teg ka foofu defe naa nit ak aw doj yamuñu de mu ne teg ka foofu bu ma feeñoo doj wi bu continuer doon aw doj dara manqué si dinga ma gis moo tax ku wéetalul yàlla yaa ngi perte walla déet loolu tawxiid dëgg la mu ne jëlal sa nga teg ci tund doj wi bu fekkee ne feeñu naa tund wi mu continuer doon aw tund dinga ma gis mu ne fa lamma tajalla rabbuhu lil jabali jaaluhu dakka wa xarra Muusaa sa'iqan yàlla ba mu feeñoo tund wi dafa doon pënd poussière waa kon bu feeñoo Moussa nu Moussa di def ah wan ngelaw lay doon wallaay yàlla ku jara moytu la ku jara moytu la waaye xoolal li ci yéeme mooy maye na loolu àllaaxira tere la ko waa ajjana nee nañu bésub ajjana xewal ya ci aljana ba ci gëna neex gën ci màgg moy bés bi ñuy gis yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla boole wujuhun yawma idhin naadira ila rabbiha naadira neene xar kanam gi yowmal xiyaam ñu jëm aljana ne xal kanam yu leer ànd ak mbégte ak contenté neene dañuy xol jaxran seen borom sallallahu alayhi wa sallam wax ne sa tarawna rabbakum yowma alqiyaamati fi ljanna kama tarawna alxamara leylata albatr mu ne laa laa tubaamuna fi ru'yatihi aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen duggee àjjana yàlla may na leen bés bu ngeen koy gisee ni ngeen di gisee weer wii ci asamaan tamsil la rek maanaam day day lay misaal lu tollook yow waaye yalla gis ka yamula gis wer wi waaye mu ngir nga man ka deg manam du ngeen puujante pour man ko gis ku ne fi nga taxaw yaangi jakarlo jàkkaarloog ñun gis asaman si xana luñu bëgg bëgg bu xanté ah xana duñ ci xanté hol asaman duñ ci xanté mu ne tamit la tubamuna fi ru'yati bu xante kérok du am ci gis gis yàlla sama borom bané lil ladina ahsanu husna wa ziyada batay fofu lay wax muné ëlëk ëllëg yowm alxiyaama am na teraanga boo yàlla dina ko fay julit ñi dé ta am gëreemam mu duggal leen al husna ajjana wa ziyada ak ndolante nak lo xamné bokul won ci programme aljana mooy lan mooy ñu jàkkaarloo ak borom bi di ko xool subhaanahu wa taala nangu la ko woon Muusa déedéet waaye du ñu ne mustaxil lu jombe la déedéet werante nag am na ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ba gis na ko wala gisu ko ala kulli xaal loola du bunte bi waaye li ñu tax a jóg mooy li ñu jële ci xisab yi nga xam ne juróom ñaar fukki nit ñoom la yàlla faatundoo faat ci kanamu yont yàlla Musaa bàyyi leen fab diir ba yont yàlla Musaa ñaan suñu boroom mu dekkalaat mu ñaan ko mu bëñ leen toppe li nga xam ne seeni xel dafa des ndax mbooloo moo dem am na ñu seen xel des bu dee seen comportement yi ñuy def ah dañu koy mbugale bu boobaa day metti waaye yàlla dañu koy ñaan muy maye kon nag foofu itam gis nañu ne yàlla boole na mbooloo reyandoo leen ba noppi dekkalandoo leen kon ka yaa naa woon màkk yeenu leer yaag sunuyu ba ngay ca ngar ngir way dégtu lil ku gëm ñu gëmu ku bañu dunu tàggoo ba diiwaano ku gëm ku bañ dunu tàggoo ba diiwaano ku gëm nu gëm ku bañ dunu tàggoo ba diiwaano ay ku gëm nu gëm ku dunu tàggoo ba diiwaano ku gëm nu gëm ku bañ dunu tàggoo ba diiwaano ay laaya ba ku gëm nu gëm ku bañ dunu tàggoo ba diwaanoo ku gëm nu gëm ku bañ tuddu tàggoo ba diwaanoo yamalew ko ci boppam ak ay saabaam ñi mu àndal day dem ba jeex Seydina Limaam dañuy maa leen mag waxuma sama bopp kuntu nabiyan wa aadamu la munjadidun fi tiinati yàlla def ma di may ndaw wa xaatamu nabiyin yore garaatu xaatamu nabiyin te booba aadama ëpp ab ab tën ab tën la jal rek bu ñu xamul lan la mu mel ni maçon yi jal nii rek war kaa gaze xaw ma waaw maam aadama tiim nañu mu fekkoon ba tën ngir leer yonnen ya ca moom lay lay la la jamoo xuti gémmel baleer ya saawaan yooyu junjuurey na dama koy waye ba dee lay lay ya baax yooyu junjuurey na dama koy waye ba diiwaano yooyu junjuurey na dama koy waye ba diiwaano yooyu junjuurey na dama koy waye ba diiwaano yooyu la sang bu tedd bi sallallahu alayhi wax ne ba aadama di doon ëpp booba leeragul lii lan la malaaka yi xamuñu lan la nee na booba fekk ne yàlla def ma ma dib yonent ba noppi yore garaat xat tëj yonent moo tax ñu di ko tuddee alfatihul xaatim waaw jërëjëf waaw loolu imaamul Busayri wax nag ca nuuniyaam nuuni yëgg xëj na siiwul comme ni Burda siiwee ak Hamziya mu ne saxabat ruuxu siba aziya laha بمديحه لإمام المرسلين أسجد الله له أملاكه حين خروا لأبيه ساجدين waaw ci gàttal mu ngay wax ca way wax ca mujj ga nee ne moom seydina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla sujjóotloo na malaaka yi ci moom ñu ne ko loolu nan la mën a nekke mu ne ba mu leen sujjóotloo ci aadama asjadallahu lahu amlaakahu xiina xarru li abihi saajidina mu ne moom mooy sekkare bi nekk ci ginnaaw sujjóot googu ibnu farid wax ko ca ab jëllëb mu mel ni kuy waxe ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa wa in kuntub na aadama suuratan fa lii fiihi maanan shaahidun bi ubuwati man doonta doom aadama laa ci jëmm ak bind doonta doomam laa man muhammadu rasulullah donte doomam laa ci bind ak jëmm maa ngi ràngoo ay maanaa yu wane may baayam waaw kon loola ca làmmiñ ibnu farid la jàng jàlle seydinaa limaam salaatu wasalaam newul moom rek moo dee woon dekk ñi ko gëm ànd ak moom wax day leer amul dara lu si du leer waaw naa woon màkk yenu leer yi ak sunuy ruu ruu yooyu ñu ngi fi woon dundoon nañu fi ëlbëtëku dekkiwaat ànd ak seen ab sang sallallahu moo tax mu ne leen yéen yéen a amee wàccuwaayu gaa ñu jëkk waaw moo tax bu leen di danaan yaa ashaabi yéen samay saaba ànd gi yàgg na ànd gi yàgg na ah waaw waaw loolu mooy li am Seydina Limaamu nëbbul dara ku gëm ñu gëm ku gëm ku bañit dun tàggoo ba diwaan nëbbul amul dara lu mu yàq lax misqaala zarra ci li xew làqu ci dara alayhi salaatu wassalaam waaw imaamul Ghazali wax na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walahul xiyaaru fi an yatuufa bayna al awaalim wa maahu arwaaxu asxaabihi ridwanullahi alayhim mu ne yàlla may naka sañ-sañ muy wëndeelu ci biir awaalim yi àddina yi mu ne ak ruuy saabaam ya mu ne pouvoir yàlla may boobu sañ-sañ yàlla may na ko saaba ya nag uluuf lañu wala déet ay junni junni lañu am na ñoo yaakaar ay junni lañu léegi junni junni yooyu nga ne ñii nag ah ñi nekkatuñu ñii moom nañ leen bàyyi ak seeni wax nekkatuñ fi loolu nan la mën a nekk sama borom ba ne mu ne ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم يومي ود اي جني في نكون الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياوا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون خنا خمو خمو ستم كل ملكو جاكار لوخمو jëm ca ñooña nga xamee ne dañu génnoon seen ab dëkk di daw dee mu ne ay junni waxum ñoom duñu ay fukka fukka waxum ñoom duñu ñu juróom fukka juróom téeméeri téeméer oloofun ay junni junni junni yu génn seen ab dëkk di daw dee nee nañu peste lañ doon daw ñii ne jiyaar lañu doon daw lu mu ci mën a doon daal dee la doon daw yaakaar ne mën nañoo rëcc dee innama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fi burujin kon dee kenn mënu koo rëcc ba ñuy daw peste boobu wala jiyaar jooja jàppe na fu ñu jëm mooy rawukaay bi yàlla xamal leen ne rawukaay ba mooy jëm nag bëggeen di dee summa dal di ñëw maanaam mu bàyyi leen fa ab biir doon ay néew summa topp axyaahum yàlla dekkalaat leen ah waaw muutu lan la dee leen ñu dee innama amru iza arada shay'an yaqul lahu kun ci kaw kun fayakun la ñu faatu ñoom ñépp ñu doon daw dee dee dal leen faat muy suñu boroom ci ndigg ndigalam summa ahyaahum toppa mu dekkalaat leen ginnaaw ab diir mu ne inna allaha la zu fadlin ala nnaas yàlla boroomi xéewal la boroomi ngëneel la ci nit ñi waaye li gën a biir bari ci nit ñi duñu gërëm yàlla du sant yàlla déedéet ndax jo taxaw di xatal kantan ak suñu boroom ci lu mel ni kooku gërëmul yàlla santul yàlla ak itam ci yeneeni mbir muy xéewal yam la xéewal leneen ak leneen ak leneen kon ay uluf kuy laaj ndax ay junni mën nañ fee jóge ñëwaat ay junni yu fi jóge ñëwaatu ngoogu léegi nag ndax ab yonent mën na fee jóge ñëwaat yàlla jox ñu misaal ba tey aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya xaawiyatun ala urushiha qaala anna yuhyi haadihi llahu ba'da mawtiha dégg loolu ab yonentaay misaalam yonentaay ñi waaw bu fekkee dañ la ne waaw wax ñu nag léegi ab yonente bu fi dundoon dee ci alquran wax nañu ay uluf ay doom adamay junni junni legi nak ané yonen ba ñun laaw kalladi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qal anna yuhyi hadhihi allah bada mawtiha lu ca tegu fa amatuhu allah ñaata mi'ata am summa baasa waaye xanaa xamoo ne waajooju jaar ci ëpp dëkk boo xam ne dem na ba gent ba raaf mu taxaw di laaj laaja laajab yéemu waaye yàlla naka lay dekkalaati dëkk bi dëkk bi nga xam ne dem na ba raaf ba gent ba maanaam moom mu ngi laaj boppam yàlla naka lay dekkalaati dëkk bi yàlla ne fa amaatuhu llahu mi ataan miata am lay Mamadu loolu doy na war mu ne yàlla rey ko téeméeri at waaw maam ju fi jógewoon téeméeri at téeméeri at ay at yu baree ngoog bokk xanaa téeméeri at du noonu wala déet bu maam bàyyi lay rek moom daanaka téeméer bi yàggu fee ah deux mille lan la woon deux mille neuf wala déedéet bi muy am téeméeri at ci suuf ah 2009 2009 2009 ci waaw waaw ci ci ci tubaab comme moom lañu ñu kon téeméeri at du du noonu yàlla faat ka moom wax nañ ne yont yàlla Uzayru la donte am nañuy wax leneen mais li gën a siiw wax nañ te yont yàlla Uzayru la ci yonentey bani Israil la bokk ginnaw bi mu ko faatee daf ka fa bàyyi téméri at waaye wanaalika kéemaan bu yéme fa amatahu allah miata am summa baasahu qala kam labista qala labista yawman aw ba'd yawm qala bal labista miata am fanzur ila taamika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linajcalaka aaya aayatan linnaasi wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha summa naksuha summa naksuha laxma falamma tabayana lahu qaala aclamu anna allaha ala kulli cheyin qadir waaw waaw téeméeri at la Uzayrun faatu mbaam ma fënax téeméeri at la Uzayrun faatu mbaam ma fënax waaw buur laa wu delloo ko ruuxam ab xolam mu defal mu ne téeméeri at téeméeri at la Uzayrun faatu mbaam ma fënax téeméeri at la Uzayru faatu mbaam ma fënax buur laawu delloo ka ruuxam ab góor yàlla delloowaat ka ruuga ab xolam mu dëfal dëfal xolam nag léegi nag xolam dal na nag ne yàlla mën lépp loolu la loolu laaya yàlla daf ko rey téeméeri at bi mu koy rey booba jant baa ngi fii ba mu koy dekkal jant baa nga fële mu defe ne benn bés la <laughs> walla sama boroom téeméeri delloo gayrul faatu maam ma fënax waaw burlaawu delloo ka ruuxam abu xalam mu dëwal loola am ba muy jaxle ba ko yàlla dekkalee dafa ne dafa yaakaar ne benn bés wala ñaar ndax bi muy faatu jant baa ngi fii ba muy dekk jant baa ngi fële di waaj a so mu defe ne ci même jour bi la fi mu nekk nii yàlla fort mu ne yàlla faat ko téeméeri at ba mu ko dekkalee la ko laaj ñaata diir bi nga de nekk fii ñaata la mu ne ka benn bés walla boog genn wàllu bés yàlla ne ka am mooy labista mi atam sax nga fii téeméeri at yàlla jommal ka moom sax na fi téeméeri at mu nekk xoolal saw lekk wi nga yoroon ñam wi nga yoroon ñii ngi naa figgal ak ñii naa lii ñii na amul solo aw ñam la yoroon mun ko xool ka ak ndox mi ñam wa soppeekuwul ndox ma soppeekuwul téeméeri at xoolal suñu boroom ndox ma soppeekuwul ñam wa soppeekuwul waaye mun ko xoolal mbaam mi bu xoolee ndox mi day gëm ne moom bés la fi am walla genn wàllu bés bu xoolee mbaam mi gëm li ko yàlla ne téeméeri at ndax mbaam ma yàlla nekk xoolal mbaam mi xoolal ma wanzur ila himaari mu xool mbaam ma doon ay yax yu fënëx booy laal mu muy ruus bu xoolee ndox meeg ñam wi foroxul dara dalul ndox mi dara dalul dara dalul ndox mi dara dalul ñam wi kon day mel ni benn journée la ci wet gogou day melni ben benn journée bu xolé mbam bi mam ma moom seey na mu melni téméri at yaa kooku kon leer ga wër na waaw mu nekk xoolal mbaam mi naka kay dekkale wat ya xam yi mu kaak kat wi ci nekkon ak suux yi ak sëddi kayfa nun suzuha summa naksuha lahma mu ne fa lama maa tabayanaloo ba leuf yi léré ci mom nañ mu ne alamu dogu naa anna allaha naka yàlla qadirun aji antan la ala kulli lépp lu mu mën a doon waa ngi dem yàlla mën lépp loolu ku koy werante jàngoo yi kon mbaam moomu mala la yàlla won na la doom aadama wan la mala léegi nag mu ngi lay won picc ngenaaw ci kaw jaww ji مام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يوسف بارم ماي ماما جس جحرا نيغي dekkale ñi de ku dee noo koy dundalaate mun nga jëlal ñeenti gannaaw yu bokkul ñii naa am tan ñii naa nangam waaye loola ala kulli bu ko bëggoon a tudda tudda ñeenti gannaaw yu bokkul nga jël leen daggat leen na googu day firi na day firi itam boole leen dajale daggat leen jaxase leen deret jaag dunq yaag lépp boppay sànni fële yi lu nekk doj wu ne nga teg si benn jaxasee lépp mu jaxase yépp seeni yàpp bokkul xeeti picc yi bokkul yàlla ne ko oo leen mu oo leen toq deret bu ci ne picc ma nga bokk da nga cay dem dunqawu ci ne da ngay fekk picc ma ci ay picc yoo xam ne bokkuñu niroo ñu bokkuñu xeet te loolu kat diggante xef ak xippi la am moo gën a xaaw gaaw xef ak xippi ay picc yu dee ay ngenaaw yu dee yàlla dekkalaat leen ñu ñëwaat ci àddina ba noppi def ko ci loxol ab jaamam xanaa loolu yomb ne yàlla wala déet summat uhunna yaatinaka saaya boo leen oowee rek ñu ñëw noonu nag la yàlla di def ak ñun yowmal xiyaam moo tax nit ki buñ ko reyoon cër bii ñu dagg yóbbu Amérique cër bi ñu dagg yóbbu France jël ay cëram tasaare ko ci àddina yowmal qiyaam bu ko yàllay oo cër yépp doy ñëwandoo ba ca Amérique ak ba ca France ak lépp ñooy uyandoo ci lu gën a gaaw ak sobam mu gën a gaaw xef ak xef xat alim naa ma tanqusul ardu minhum wa indana kitaabun hafiz yàlla ne lu suuf lekk ci yéen xam naa fu mu féete waaw te yor naa téere bu man a ottu àll bu ci mën a ottu sa peppu karaw sax bu nekkoon Amérique bu ma la ooyee peppa we naaw ñëw si kooku mooy suñu boroom ku ko xam doo weddi dara ci wetam ay ngenaawa ngo ngenaaw ya Ibrahima daa dekkal kooku ab jaamam moo ko doon def ñu gaaw tubon ndax ñu ngi guddi ñu jéggalu mbooloom it bu ñu ñëwee ci yonte yàlla Isa ndax dañuy saxal tegtali maam bàyyi laay la salaatu wasalaam ku ko weddi weddi alxuraan bokk na ci kéemtaan yi nga xamee ne day saxal ne dee nekk am na yàlla jaaree ko batay ci ci loxol ab jaam bu ñu wax isa ibn maryam def na ko dem def na ko tay way nañ jëm ci bu alquran mu daldi wax ne wa yuallimuhu alkitaba walxikma waltawrata walinjil wa rasulan ila bani israil anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum anni axluqu lakum min attini ka hayati tayr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 ci ndigal suñu borom kon axluqu lakum min at-tin ka hay'ati tayr day ñëw fekk ban walla suuf mu daldi si nataal mu mel nim picc mu ëf ci mu naaw dem loolu bokk na ci li nekk ci aaya bi te xeetoog li ñu wax am na yeneen yu ci ne waaye liñ soxla ci biir aaya bi fi mu toll ngir jotaay loolu xam ngeen ne looluy kéemaane da jëfi sama boroom la mu jaaree ka si loxol jaamam mu ëlbëtaku new uxil mawta waaye nag lépp nag danaan bi iznillah damay dekkal ñi dee faatu ci ndigalal yàlla lim nañu ay tur Azar ak Saam ibnu Nuux ak ñu mel ni ñoom imaam Faxruddin Razi wax na ca téereem ne moom bu daa dekkal ci yaa xayu yaa qayyuum lay dekkale wallahu alam lu mën a ne waaye bi yi daal la wax dekkal na ku ñu naan Azar ab xaritam la woon dekkal na saam doomi noox kooka ba mu fi jógee yàgg na ak ñeneen am na nag ñoo xam ne nee nañ comme yàlla tudd li tur bu ñu tuddi tur li ci am solo mooy mbir mi oyof na ci suñu boroom ba ay jaamam ñooy def loolu kon nag loolu war nañoo mën a xatal suñu boroom ci kéemtaan gu toll noonu warul mën a ne ñu ñëw nag ndax yonent bu ne samay dom yima gëmon gëmoon dënd ànd ak man it dañuy àndaat ak man yàlla dekkalat len ñu ak man te goko fen ñu ne te goko fen ñu ne kay ci xeyt xissab yonti yàlla ayyub wa ayuba iznada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa aataynaahu ahlahu ومثلهم معهم رحمة من من عندنا وذكرى للعابدين kuy laaj ndax yon njaboot ak yonent mën nañ fee jóge dee ba noppi dekkiwaat kaay ci xisab yont yàlla ayuba ba mu jooweeree yàlla suñu boroom xamal ne ak lor dab na ko wàcc na ci moom muy lor goo xam ne umpalewul kenn umpalewu ci nattu yi gën a natt ma metti ci nattu yiy dal jaami yàlla yi bu yont yàlla ayub da ci bokk mu ñàkk ci ay doomam ñàkk ci njabootam ba mu des soxnaam yàlla faat leen ci biir nattu ba loola suñu boroom ba nag ba nattu ba jeexee suñu boroom ba indilaat ko doomam yafaatu woon dekkalaat leen indiwaat lu tollook ñoom ci ëb lim mu ne rahmatan min min min indina wa zikra lil abidin muy xéewal ak yërmande bu bàyyeekoo ci man ma defal loolu yent yàlla ayub maa ko dekkalal ay doom loola yéeme na moo tax abdullah ibnu mas'ud saaba bu tedd boobu dal di wax ne axyaa man amaata min banihi wa banaatihi wa razaqahu mislahum min alwalad rahmatan min indina wa zikra lil abidin mu ne yàlla suñu boroom dafa dekkalaatal yonti yàlla ayuba doomam yu góor yi faatu woon ak doomam yu jigéen yi faatu woon ak seen kem nee nañu juróom-ñaari góor lañ ak juróom-ñaari jigéen wallahu alam mu ne maata awlaaduhum sabatun min azukur abdullah ibnu masud saa boobu tedda boobu wa sabatun min al inaas fa lamma ufiya nusiru lahu wa waladat lahu mraatuhu sabatu aw aw sab'ata banina wa sab'a banaat wa waladat lahum ra'atuhu sab'ata wa sab'a banaat yàlla dafa faat ay doomam moom yonti yàlla ayub juróom-ñaari doom yu góor ak juróom-ñaari doom yu jigéen yàlla nag tëggaat soxnaam mu indilaat ka yeneen juróom-ñaari ak yeneen jigéen njaboot ak yonent foofu dee nañu ba noppi dekkiwaat ànd ak seen bàyyi wala déet waaw kay kon waxtu wi mu ngi nuy dab bu ñu ñëwaatee itam wax nañu mbaam wax ngenaaw léegi ciw jën lañu jëm mu làmba ñett yi jawwa ji jéeri ji géej gi nit ñi mala yi jën yi xanaa kon weddi xajatul foofu jën wii nag ci xisab yonti yalla musa ak ndawam lamu andalon muy yonti yalla Yuusa la wax ba magge ab yonenta la doon bañuy dox seen dox bu yagga ba moy dox bañu ñu ak yonti yalla khadir mune ne ci bopam kérok bo démé aya bi mu ngi wax ca suratul kahf moom seydinaa Muusa aleyhi salaatu wasalaam ba muy wax ak yonti yàlla yuusa qaal araayta id awaynaa ila saxra fa inni nasiitu alxuut wa ma ansaanihu illa alcheytaanu an azkura wattaxaza sabilahu fi lbaxri ajaba nee ne ba mu ko ba mu ko ne aatinaa xadaana andil nu sunu sunub añ lañ ko mën a tuddee mu nekk kat ba ñu nekkee ca doj wa ca tund yaa ngi dégg jën wa ñu fa tegoon war ko añi dama ko fàtte te seytaane moo raay sama bopp ba ma fàtte ko waaw waaye ba ñu demee jën wa tëb na dugg ci biir géej gi demu yoonam si seen dox bu yàgg boobu bàyyi fa aw jën aw jën boo ko tegee fii yaakaar naa pour mu dundaat ci ngelaw lii ah ñun ñëpp xam nañ ne loolu ah warul gaaw ne moo tax ibnu zeyd ne wattaxasa sabilahu fi lbahri ajaba mu ne ajabun wallahi xuutun kaana yukalu minhu adhuran ayu seyin ajab min xuutin kaana dahran min adduhur yukalu minhu summa saara xayan xatta xusira fi lbaxar mu ne kéemtaan am na jën woo xam ne lakk nañu ko wala boog fiiriir nañ ko wala deme noonu lekk ca bàyyi ca mu tëb dugg ci géej demu yoonam mu ne loolu de kéemtaan bu réerée rëy mu ngoogu jaam yàlla yi war see jël kéemtaan goo xamee ne yàlla aw jën moo tax abu mansuur al maturidi mu ne leen am na diggante boroom xam-xam yi ndax jën wa dañ ko defar ba mu noppi baanaam dañ ko lakk wala ñu saaf ko ba mu noppi wala boog jën wu tooy la woon mu ne إن الحوت كان مسويا فأحياه الله قال أهل التأويل إن الحوت كان مسويا فأحياه الله وقالوا بعضهم كان طريا من مفسرون ني نين جن ودا فا نيور يالا دوندالات ك ني ن ديدت جن وتوي لا كان توغو ك كن لاكوكا من ولكن ليس لنا الى معرفه الحوت انه كان مسويا او طريا حاجه وهو قادر على ان يحييه مسويا aw tariya ay fii ay xaalin kaana wallahu alam nee na ñun amuñu aajo di xam ndax jën wa jot nañ ko togg walla jot nañ ko bisi wala jotuñ ko mu ne li ñu xam mooy lu mu ci mën a doon ci ñaar yi yàlla mën na lu ko raw wala déet kon nag gaa ñi yaakaar naa ne waxtu yi mu ngi dugg eh, tegtal yi bari na ci bunte bii waaye waxtu yépp mënu jël ndax diggante alquran ak sunnaam moom sallallahu alayhi wa ak nettali mag ña jobal naa la ci téere bu ñuy wax man aasha baadal mawt lii ay aayay alquran la génnuñ ko alquran benn yoon lépp luy wane ne yàlla loolu daf ko man te itam ci tafsiru ibnu abbas ndax isa ndax dafa faatu yàlla yëkki ka wala faatuwul yàlla yëkki ka xam ngeen werante woowu ba tey mu ngi fi ibnu abbas nee ne yàlla doo ko faat yëkki ka moom loolu la gëm ak déglu déglu maanaam dafa bëgg a wax ne isaa dafa faatu dekkiwaat ndax boo demee asamaawkat ay yonente yu ñu suuloon si suuf ñoom nga fay fekk te suuf lañ leen mu ne dañ ko reyul waaye faatu la dekkiwaat moo ibnu abbas moo wax loolu imam malik boo demee ci at tamhid bu imam ibnu abdul bar moom it loolu la fa wax nee ne ci sama ashab wa ibnu naafi an malik fi kitab al utbi qaal qaala malikun kaana isa bnu maryama yaqul yabna thalathin madat thalathun fa maada tantazir qaala wa maata wa huwa ibnu thalathin wa thalathina sana mu ne isaa bi mu amee 33 ans da daan wax naan yow doomi fanweer yi yow doomi fanweer jaf na salaasin mabati salaasin mu ne fanweer yi jàll na ba fanweer yi jàllee la xam ne li ko dese bariwul imaam Malik ne fa maata te téere bi ma lay wax ci wàllu fépp day saraa téere bu ñu wax mu watta wéerukaayu Malik ñoo ko génn mu ne mu dal di faatu doon doomi fanweer at ak demain de Maalik moo ko wax moom loolu la gis depp ci ak ibn Abbas am ñu ne naka na la wal nangam ak nangam ala kulli hal mom neena dafa faatu wa waaw lu ñu xam dal moy asaman ña fa nekk ñepp dañu faatu loolu mom xam na nu tax ndax ñi yonenta bi gis ci asamaaw yépp ay yonenta lañ woon yu ñu gas ba mu xóot dugal leen si yàlla yëkkati leen yóbbu ko yàlla nag moo xam li nga xam ne mooy la ca wér waaye dama la bëgg xamal ne lii ay kàngam ñoo ko wax li si des waxtu wi du ko mate ñuy jéem a delloo si sunu bopp ñu xoolaat niiraati imaamul maadiyu alayhi salaatu sëriñ seeti leen seen téere niiraati maadiyu ku ci ràññeewul bàyyi laay limaamoo di xejjaba kon ay dalilam du jeex du xaaj waaye nag ala kulli xaal nun dalil ya mu ñàkk ñëw du ñu yokk du ñu wàññeeku du ñu wàññi gëm nañu fi ñu toll kay mooy ñaan yàlla mu rey ñu ci dekkal ñu si dajale donc moom wa axiru daawaani alhamdulillahi rabbil alamin yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu xéewal yàlla nañ ko teew ay déwén yu bari te rafetu fekkin wa axiru daawaani alhamdulillahi rabbil alamin yàlla defal ñu jàmm laay